قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سنبي تم فمن تعلق بواصل وصل wa man taallaqa bi aksihin fasal buy doow aajana bu bare bare bari mooy képp koo xam ne ki nga jàpp tegu ci yoon di dox jëm ci ngërëmul yàlla yàgg-yàgg di nga dem maanaam di nga àgg yow ci ngërëmul yàlla su fekkee nag dangaa fekk koo xam ne moom doxul jëm ci ngërëmul yàlla mbirum yàlla ko àdduna rekk moo fees xoram kooku itam yow dox doo dem dana la gàllankoor itam mooy waman taallaqa bi aksihin fasal juróom mbir yi mu wax nag ci ne Sëñ Tuubaa daa wax ne wajaa anhum anna xamsan min xisaal tufdil murida li wusulin wa wisaal nee na am na juróom mbir yoo xam ne dana tax murid bi am wusul ak wisaal ñaare yu bokkuñu wusul mooy àgg ci yàlla àgg ci yàlla wax naa ne mooy àgg ci ngërëmul yàlla rek lañ jublu dem ba yàlla gërëm la nga xam ne nga rekk lay jëflante yow lu la mu fekk la ci loolu la ñoo àgg ci yàlla te loolu am na itam am nay shawahid am na jaam ñoo xam ni am bu wér a wér a wér ci jamono yi yónnte wala tàmbali woon mën na cay ni misaal yu bare bare waaye dama xam ne bu ma toppee misaal yi nii day gudd bu ñu bu ci am laaj bu la neexee nga laaj ko ma ma ci waaye lo maanaam maanaam wusool mooy lool dem ba ag ci ngërëmul yàlla ba yàlla gërëm la nga xam ne yow ya sun borom dafa wax ne sama jaam bi du bañ du dañ di ma jagañ jagañ lu mooy di di di bëgg wut ci di ma bëgg jege si mooy di di ma wut si boo bëggee wuti yàlla itam fawwu nga jaare ko ci waa waa waa ju baax ju yàlla gërëm moom maanaam maanaam mooy tax nga mën ko def yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila yàlla ko wax wasila firin wi mën nañ cee wuti kii ne mooy ngay jëf-jëf ju baax kii ne mooy nga wutu sëriñ waaye wasiila moom yàlla nee na faw boo bëggee agsi fi man na nga wut wasiila wasiila mooy ku dox sama digg yow wasiila mooy jottalukaay tawassala wasiila mooy loo mooy mooy loo xam ne te tawassalu bihi ilallaahi maanaam ci ngay jaare dem ci yàlla yàlla kenn du xëy rek dem ci moom direct boo ko dee doo doo doo àgg ci yàlla ci seytaane seytaane lay fëkk ci yoon wi moo tax faaw nga am wasiila yàlla itam wax na ne walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uuk فاستغفروا الله واستغفر lahum rasul la wajadu llaha tawwaban rahiman mboolem ñu def bàkkaar su fekkoon dañoo ñëw ci yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam jéggalu yàlla nga jéggalul leen yow fastaghfara wastaghfara lahum rasul la wajadu llaha tawwaban fa saase dañuy yàlla day jëfal day jëflante ñoom ci meloom aw tawwabu rahim mooy dinañ daal di yërëm jéggal leen ndax yonente bi alayhi salaam mi nga xam ne mooy buntu yërmande suñu borom foofu lañ jaare moo tax foofu loolu la borom xam yi firee ne kon aaya bi mooy firi ba de ca suratul maayida maanaam wasila ginnaaw mënta ñàkk kon jëmm joo xam ni yàllaa koy sam mu fi mu nekk fi maanaam taxaw fi di leeral bëggug suñu borom gi ak njubug suñu borom gi ak leerug suñu borom gi te ab yonente daa doon ci jamono ginnaaw yonente itam ay mu jëddi du la ñu doon yoo xam ne dañuy doon yonente bi ci wàll yépp loolu it waxtaan nañ ko ba tey ñooñee faw nga jaar ci ñoom ñu dog la àggal nak ci ngërëm yalla buru lolu man ngay dund l'islam ni waye sa xol moy fess del ak sik man nga reuy wala nga soxor wala nga iñaan wala nga yek sa bop wala nga bañ nit ñi wala nga bañ ben doom adama te do ko tek fenn te fek manam suñu borom fi ne ag ci ko ko dañoo aljana la jannatul ma'rifa la ko gaay la gaay yi tudde jannatul ma'rifa muy xam suñu borom ko taala ak ak jégué ko fi ne moo àjjana ju mag ja rek ñooy am la njëkk yàlla njëkk jëflante yow bu la ca bëggee dugal mooy wa nazaana ma fi sudurihim min ghin sa xol da ciy génn li ak coxar ak bañ benn doomu aadama loolu li feeg mi ngi ci yow rek dese nga lu bare bare bare moo tax xol boobu wasiila boobu moo doon wax wala sëriñ boobu loolu la yitte woo mooy defar ko ci yow moo tax nag fi ne ñiy jaare ci ci sëriñ di dem fi ñuy ñu néew la ndax day am ñoo xam ne fi ne masalan ñëw ci sëriñ ah li leen sëñ bi def loolu duñ ko def masalan ci misaal bu leen gëddee rek ñu mer taxu fële ne moom lii sama waaju sama waaju xoroma ji deel wax ne jenn yoo xam ne du ma mën mën a boole di joxe ak di ak di ak di ni ko waaj gis mu ngi tooñ yenn gars yi mooy du ma mën a boole di joxe ak di di di dem ca marché ba comme wala ca liggéey ba masalan nga xam ne yow nga ne joxe gi ngay jox addiye moo tax taxawaay lépp loo war a def si sëñ bi itam daa war a waxuma la bég ci waaye daa war a moom sopp ku dégg nga am soptale bi moom nga xam nekk say service foo ko soxlaa mu ñëw a loolu di ma ko wax léegi rek dug cëriñ dug taalibe du lu kenn xam yàlla yàlla musal ci loolu suñu tubaab nag nee na wusul googu ak wisaal wisaal it beneen mbir la bu borom xam ñu wax wisaal mooy mooy nga am contact ak sa borom gaay bëgg yàlla dëgg-dëgg seen yitte mooy am contact ak seen borom maanaam wisaal mooy loolu contact mu la ko wax moy mooy tubaab waaye mooy mooy dem ba cofeelu suñu borom bëgg suñu borom dominer sa xol fees ko dal ba sa yitte mooy suñu borom tubaab taala nga xam ne yow booy jaamoote yàlla sax doo ko jaamu ngir bëgg a dem àjjana wala ngir ragal sawara wax naa ne am na ci gaay yàlla yi koo xam bi mu demee bay faatu yàlla da ko muril aljana xam nga yu bari wala mu jullit ñu bari sax bu ñu demee bay faatu fa kachaf naa an ka rita ak maanaam dañ lay muril kiiraayu mbir yu bare bari nga janloog mboolem kumpa yu bare bari bari ca ngay xamee fa nga jëm danga nga mucc wala doo mucc ci ngay gisee lu bare bare bari waaye foofu dañuy téye sa lamiñ doo mën a wax am na yoo xam ne boo gisee wax ci ngay tàmm di ne ja xool xool boo xam ni maanaam foofu lu fekk foofu lañ jëlee sa ruuj ndax dangay gis yoo xam ne da jaaxal nga nga di ko xool ni far ñu far jël sa ruuj ndax boo ko doon nettalaat kenn gars yi dañuy tiit te yàlla bëggut nit ñi xam ko yow rek lañ jubloo xam ne fi na ni moom maanaam jaxlu nga ci àdduna yaa ngi jëm ci beneen ala beneen étape kasaf na an ka sëñ boobu nag moom it loolu la moom day waaju baax joo xam ne bi muy faatu yàlla da koo defal mboolem gaa yu baax yu bare bare awliya yow ñëw fekke ko fekke faatu bi mu fu ne ñu ñu ñu yëgal leen ko ñu ñëw bi ñëwee di ko fekk nag dañoo gis bi mu waaj a faatu mu jékki-jékki gis wax wax yoo xam ne day tegtale ne dafa gis àjjana ci moom yàlla muril ko ko mu xam ne foofu la nar a jëm mu daal di wax ne fa in taku manzilati fi lxubbi indakumu ma qad raaytu faqad dayaatu ayaami bu fekkee maanaam li ma la bëggoon ak li ma doon doxalan jëflante yow yëpp suñu borom yàkkali gi ma doon yàkkali ko accès ci yow lépp li nga ma ko nar a muy lek gek nan gek kër yu mbir yu rafet yi ci aljana kon man sank na sama waxtu manam yak na sama sama tadal li taxu ma djuk aljana yi ni yow sa bop suñu borom yow la yow la yow la yow la la bëgg yow la bëgg ak parce nga xanam xép na aljana yi ni bo gisé ak murit it foofu leen suñ tubaab fàkkal mooy ñoo xam ni ak sawar ak yoy du leen tax di jëf dañuy jëf ngir jëmmi suñu borom yuriduuna wajhahu muridullahi mooy kaanu yàlla kese mooy ki ko ñor tonte nag dana bëgg a dem àjjana mën na koy sax ñaan waaye la ko tax di jëf mooy jëmm suñu borom tabaraka taala ji rek moom lay bëgg moom lay wut moom lay sàkk moom lay ragal itam mooy yuriduuna wajhahu dalika xayrun lilladina yuriduuna wajha allaahi wa ulaika humul muflixuuna ñooña ci jamono yonte bi yàlla ci moom dafa wax yonente bi ne ko bul jug fi ñoom gaañoo ñi nga xam ne yàlla rek leen ñor tënkal sa bopp ci ñoom wasbir nafsaka maa alladina yad'uuna rabbahum bilgadaati wal asi yuriduuna wajhahu maanaam ñooñu yàlla rek moo leen ñor moo tax yow tënkal sa bopp ci ñoom bu leen dàq mukk wala tatrudi alladina yad'uuna rabbahum bilgadaati wal asi yuriduuna wajhahu moo tax moo tax nga gis kenn ci gaay gaay yu baax yi day wax ne laysa qasdi ليس قصدي من الجنان نعيما غير اني احبها لاراك مانا بومي بغ اجانا خيوال يا فني تفوما تفوما كو بغ دما خامني اجانا ريك فوفي لاي لاي مانا غيس يا سون بوروم موتاخ ما ديكو نيانا كو ووت واي بودون دول صاح دوما كو فوت دوما كو ساك ينت بي واخنا تي حديث بو ورني امنا ньо خامني دنج لين دوجال اجانا بي سلاسل امنا ньо خاني فني غير ني دوج اجانا دنج لين دي فودان yeewu leen bañ ne ngodd ñu ñu ñu yanu leen yóbbu ajana parce que ngir ajana taxu leen a jóg maanaam mooy ñooñu maanaam ajaban li li li man yusaaqu ilal jannati bis salaasili aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam noonu la ko waxee ñoo xam ni bala ñoo dugg ajana ne coono bu ri la malaayka yi daj dañ ne foo da nga takk leen bañ ne ngodd ñu yanu leen doog a yóbbu ajana nga xam ne ñoom yàlla yàlla boole ci gaajo قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم